Moustapha la ñuy laaj ministre bi la ñuy laaj Sérias Ba yaay ministre de bi président wóolu na la bilaay ñoora sa baay tàccu mu neex kookoy bàyyi awa ba kookoy bàyyi roxe ba kookoy Sérias Sall kookoy Sérias Nooy yaa si nooy première dame bi la réew mi doo ci ñaaw yaa si sàll Sëriñ Moustapha laay bëgga woo ah, woy wi yaa ko moom yaa seen woy ma soxama sama waaje woyuma dem ba Gambia ngoy foog ma dem ba Gambia dugg Gambi jël naa féeri bi wàcce naa Gambia maa ngi seeti waa Gambia maa ngi seeti Matar Sose Matar Samba Anja Yaasin Matar mi may woyal acca ak su seen mooy sa ay bilaay ko fi def lu ñaaw séeré aji saxooy bàyyi na bu la mataar géwëlu Seydina Muhammad mataar soose dem naa ba Gàmbi kenn mataar mi may wëyal kokoy borom Gambia kokoy borom Gambia mataar kuy sa baay bi liggéey loo alaaji ma seet soose mooy sa baay soose mooy sa baay Matar Samba Anta Yaasin ñu ko mi ci kaale ñu dem Gambi le 17 février bakka daji lañ koy suyee Matar soose woote naa bilay tàccu leen murit ay da seen konte tamit woote naa dugg naa Gambia man dugg naa Gambia na Gambia mata soose samba aca yaasin kay wuyu ma waaw waaw waaw waaw waaw waaw jëli doxal waaw waaw jëli sab jëli mbay waay tàcc leen jëli mbay waay balu sëñ waali fay Maria looy ragal tey am nga arme am nga seefaay góor ya bala yoo ana Lamin Tunkar Lamin Tunkar mi may woyal aji Awa Tunkar mooy sa yaay Ibrahima Tunkar mooy sa baay papa kanu dugara kooku laa la sama directeur Lamine dugaraay sama directeur kuy directeur Lamine dugara kuy directeur Lamine dugara xam nga kuy sa yaay awala Lamine yow danga baax kan nga bokkal yaay papa kanu dugara clinique Alaaji Ibrahima Niass Serigne Assou Mbow Papa Kanouté tàccu leen lii Lamine la ñuy bégal Lamine la ñuy bégal waaw Lamine Dongara Ibrahima mooy baay kookoy baay mbay maa la nuyoon nii Lamine Dongara ma wéy sama waa ji pour la macha allah ah na nag. tubaarkàlla tubaarkàlla xadim ba Yaasin Sall baax. ku baax la nit ku baax. macha allah xam nga nit ñi kenn moomul kenn. déedéet am na sa góor bi nekk Kër Massar. Kebaaba frère ministre Kebaaba jéeri Kole Kebaaba ku baax la jéeri Kole waaw. Kebaaba son Kole wuyu ma. mooy suñu pareewu émission maama jëleen. Kebaaba maama Ousmane ma nga neex. ndeysaan Kebaaba maamu nga yaa moomoon ñorooy bosman ta siin ko baax na yow lay mel dinde anta soleil yaa moomoon ñorooy bosman ta siin ko baax ni yow lay mel billaay Kéba Ba moom ngay gis mooy bàyyi Moustapha Ba. Kéba Ba jéeri ku waa kër Matia Samba maa Pathé Goro Oumou Sow laaj. mi ngi jàppale waa Kër Massar Kéba Ba koo koy jàppale waa Kër Massar. waaw waaw billaay ministre président arrangé leen Kéba sama waa jéeri ku waa kër Matia Samba maa Pathé. Mm. doonay ko li waaw toon ko li wuyu ma. <laughs> maama jëleen. mama Ousmane nga sogoon na ma billaay maama nga tëngalaan yaa moomoon yorooy bosman te siin ku baax ne yow lay mel dindi anta soleil eh yaa moomoon yorooy bosman te siin ku baax ne yow lay mel kookoy kebaaba kebaaba macha allah jérikoole muy nit ku baax nag ku bari valeur nekk fële ca Kër Massar di dooleel président waaw son excellence Macky Sall mu ko fay dooleel lu bari macha allah kebaaba muy nit ku baax xadi boobu Xadi Mbuub euh, euh, dëkk bi dafa bari ay valeur am ay nitu valeur yoo xam ne dañ naan euh, foo fekk tepp tepp fu ndox doon taar waaw kon nitu valeur yi mm. yaa xa jaa ñi ngi fi ba tey dëgg la dëkk bi nit ñu nga gis leen xale yi di gàddaay di dem ci gaal gi ñoo ñu am rubrique boo xam ne dafa tudd nemmeeku nemmeeku ñu war a dem nag seeti ji kilifa bii ñuy seeti ndeysaan ci rubrique nemmeeku mm-hmm. mu mu wax ñu ne tekki ci dëkk bi am na tukki tekki am na waaye te toog ci dëkk bi tekki am na. Mhm. ñu dem nag seeti élément boobu ngoy ñëwaat. d'accord mbokk yi xarit. man de conseil bi may jox xale yi. Mhm. nit dama dama naan nit fu mu nekk. Mhm. wërsëgam dina ko fekk. man exemple bi may jël sama bopp laa koy jëlee. man bi may gën a nekk xale. tey 89 may liggéey benn société boo xam ne tëj na léegi. Mm-hmm. ma nekk fa mu tëj sama mag ñëw ne ma yow da war a voyager booba Italie yi rek moo xew dem mm-hmm. ay Italie Espagne rek ngay dégg. Mm-hmm. nga xam ne da yow liggéey na naan na passe baa ngi de demal man ko man duma dem man ko man fii laay toog liggéey parce que am naa fi relation am naa fi expérience du ma li ma fi am nii du ko fi bàyyi dem di commencé waat feneen à xaw ma lu ma fay fekk. mun ma da ngaa dëgër bopp man ko déedéet dëgëru bopp. man xam naa li may liggéey fii laa toog liggéey nekk employé tey jii ba nekk chef d'entreprise mën naa xam ne ci courtier d'assurance yi gën a mag Sénégal si la bokk fi ne nii maa ngi ci sant yàlla bu baax waaw loolu bokk exemple boobu laay jox xale yi nee naa liggéey rek mu am solo foo toog di nga liggéey surtout léegi man nee naa sax léegi il paraît que ñu nekk ñu ñu seet si foofu sax ñoom dëgg naa dañuy ñëw côté yi léegi di wut si liggéey nee naa lépp lépp am na fi mais ñii dañoo jàngi métier dem liggéey tekki mm-hmm. ñii dañoo dem jàng am bac dem ay université ñëw tekki mm-hmm. ku nekk ak sa chance ci fi nga nekk mm-hmm. man nee naa nit fu mu nekk fi ci li nga yëngatu ci la sa wërsëg di nekk xam nga lu bon toog croiser les bras naan man de am naa diplôme bi du def lii duma def lii moi je suis contre moi avec quinze mille francs de salaire billaahi maa ngi ni tey tey nekk chef d'entreprise. Mm-hmm. di fay impôt di fay tous les droits lu dëkk bu fay. maa ngi sant yàlla je suis un bon contribuable. Mm-hmm. mën naa wax ne à partir du 15 janvier boo ma ñëwee ma jox la ma jox la quitus. quitus ah. mooy wane ni fay nga lépp fay nga IPRES fay nga caisse de sécurité sociale fay nga sa droit yëpp. Mm-hmm. loolu maa ngi sant yàlla. xam la kon boog nit fu foo nekk di fa liggéey. fu la sa wërsëg di fekk. voyager bi d' accord ci benn côté am na fu mu baax mais am na boo yow boo boo peesee sa bopp war ngaa xam ne war naa dem koo xam ne yow da ngay dem maanaam maanaam maanaam ni muy voyager man moom laa comprendre yow da ngay dugg si gaal gi dem foo xam ne xamoo loo fay fekk xamoo ne lii nga fay def dangay dem rek naa ah man yàlla mën naa amoo dara mën ngaa dem rek taseeg dara man d' accord naa kuy voyager ci nga ne ah def sa benn kii noonu. planning waaw planning. am am euh, voilà genre yooyu nga ne ah fii kat laay am naa fa benn projet bu may liggéey ba xam ne am nga yëpp. Mhm. man loolu d' naa si. voilà loolu nag moo tax ñu ni. Mhm. man li may conseiller jeunes yi. Mhm. nañ toog bu jàng jotee nañ toog jàng. xam na suñu amee ay pré-inscription sax wala yu dema noonu mën nañoo daal dem. mais wala nga am fa ku la fa woo wala sa benn liggéey boo ñëwee fii di liggéey mais dem foofu boo déggee ñu lay dàq ak ñi tiire ay bali fital ak kii dee naa kii deewul ak wala nangam wala gaal ga egg na gaal ga amatul essence ak yooyu aventure yooyu ku koy def da ngay da ngay xaru nañ nañ ngir yàlla toog fii xaar yàlla ku nekk am ko fi sa place. Mm-hmm. fi nga dëkk juddoo fa. Mm-hmm. loo fa yëngal yàlla mën na ci def. Euh, man bi may commencé maa ngi tàmbale woon benn société bu ñuy wax MSAC foofu tëj en 98 benn cabinet bu ñu doon wax CAC pour ne pas faire la publicité ma dugg foofu mhm. nekk fa directeur production falaa xam ne ñi ñëpp xale yi ñu fekk ma fa ma am yërmande si ñoom ñuy liggéey jàppale ba 2012 ma démissionné foofu mhm. ni damay def sama yëfu bopp mhm. mais ku ma ci tàggu dama dama fi bàyyi mooy góor gi mii. ak ku ñuy wax Maane. ak euh, ñeneen ak ñi nekk Touba. Mm-hmm. waaw parce que ñun am nañ ko fépp. ci pàcc ci région yi am nañ ko Mbour. Mm-hmm. am nañ ko Kaolack. am nañ ko mm-hmm. Touba. booy xool bu gën a mag ñoo ñun ñoo am nañ ko Touba. am ko fii Colobane fii tamit am nañ fi benn ak fii. fii man nag mooy siège bi. waaw fii man maay directeur xam nga. léegi nag ñoom. Mhm. Euh, ñu nekk xale yoo xam ne aussi. Mhm. sont dynamiques. am jom. Mhm. mën a liggéey. mën naa ne man fii dama fiy ñëw rek. mais daanaka. superviseur lépp ñoo koy def. ñoo bi nga gis nii. c'est un grand champion. il a de relations nangu naa liggéey samedi samedi dimanche sax boo nekkoon kaay liggéey mu liggéey. mais xam nga ñooñu c'était kii. ay jàmbaar lañu. ay jàmbaar lañu. ñu jar a encouragé moo suñu suñu relation sax nekkul ay employé wala ay kii. déedéet. keroog bi may def di leen signé seen papier d'embauche. Mm-hmm. ne leen kii leen ñoom ñoom ñun dañuy si signé ñu xool sax nekk laa laa leen fay. wallaahi xam loolu daw na yaram. daw na yaram. di dem ni du ñoom du xool kii bi dañuy gëm signé. loolu lu may lu may fàttaliku la sama kii mu bañ ma ma man tam ma bañ a dem ba sa kanam may. <laughs> may kii quoi xam nga loolu tamit dafa. c'est trop. waxee ne man ah a may aane ñun ma de grand dañuy sax xanaa commencé guñ sax. loolu lañ may wax. kon boog loolu sant yàlla la. Mm-hmm. ñi nekk ci kaw. Mm-hmm. ne ni yërëm ñi nekk ci suuf. Mm-hmm. c'est important. kilifa boo nekkee ci entreprise. da ngay jéggale. di jëlale di am yërmande. bañ a xeeb bañ a xeeb kenn. xoolal sa entreprise. nga toog ci buntu kër ga jaay caaf. wala ah, ki ni yónni. bu ci xeeb kenn xamoo ku ci nekk ndax wërsëgam moo tax fii taxaw ba léegi. loolu bëgg kooku benn góor moom paa moom ak ma sa ok xam la nee naa fii famille la. Mhm. bañ naa ko ba sax dama wax ni bureau yëpp. bu heure añ jotee bu kenn jënd añ nañ dem ci ci jël ci ci kaas bi ci mm-hmm. ci kees bi mm-hmm. ngeen jënd ngeen añ ba suuf yëpp avantage la ci kër gi loo xam ne mën naa wax ni sarax la xaw ma nu ko mën a tuddee ku ci nekk boo mënoon génne mille francs eh, jëndi añ mm. donc kees gi nga koy jële lekk ba mm-hmm. suuf doo fay dara solo la yii bu ko ndaw ñu déggee seen xel dina dellusi ñu xam ni dara du hasard foo toog yëngatu yàlla mën na la faa fekk xam nga ñun yor tey lii ñun ñu yor tey lii ci lu tuuti lañ tàmbalee lu ndaw a ndaw a ndaw amuñu woon dara dara dara dara vraiment nekk ci ay pré conditions yu précaires waaw mais tey euh, euh, ngay xaar di liggéey di comme ni ñun on oh, oh, man sama kii mooy man damay dem ak pérennité. Ah. du ma du ma ne yàq mosuma yàqal ko wax bu naa ma Diop sax danaan eh ku dal ku la. sa bu naa ma Diop ko ko wax. danaan la ku dal ku ñi ma xam bokk. ci loolu lañ ma xamuñu ma ci kii noonu bi ay vitesse sa këtt këtt yooyu. man damay def ndànk rek di def ndànk di def ndànk ba ñëw. Mhm. tey lu ma doon mébét ci àdduna. mën mhm. naa wax ni bu doon kër. yooyu yëpp yàlla jox na ma ko ay lépp nag yu bëree bëri nag am na yoo xam sax kenn du ko wax ci ay kii ni day mel ni <laughs> xam nga ah voilà sant sant sant yàlla jeunes yi daal maa ngi ku fiy génn na am pré-inscription wala bu wóor ne boo demee foofu kat dem ci condition yi leer leer gaa ngi nii rek nga naa dugg ci gaal gi rek dem mbëkk ma xamoo mooy mbëkk bi lu ñuy wax mbëkk mi mooy xamoo loo fay fekk mu nga fa fekk lu baax. Mm-hmm. comme te nee naa sax fekk fa su lu bon sax moo ëpp. nga nga fekk fa lu baax. ñu ne géej gi dafa yëngu nañu arrêté gaal yi man dama jaaxal ci xale yi. Mm-hmm. mooy toujours nga dégg ñu ne temps de mort temps de mort. Mm-hmm. mais ba tey xale yi man ne dañ leen gën a kii daal. waaw ma ne man nag est nag état bi tamit. moo war a jug nag. Ah, accompagner leen. jug accompagner leen ba pare. def xeex ak ñi ñi leen yóbbu. waaw ah, xeex boobu. fexe ba loolu doo amati loolu mooy affaire bi te ñun gendarmerie police bi am nañ bu ñu am confiance fii état bi mhm. ñoo xam ni ah, vraiment waaw valeureux mhm. ñoom mën nañoo fexe ba dii doo fi amati ay sa papa bu liggéey ni coon sekk di way naan balaa ngaa xam boo yoree kër nga xam ne sa baay daan daj waaw waaw loolu ku ne xam man xam naa ci dara tey ngeen ko kër fii ñun la jën jeex na yàpp bi jeex na dépense li jeex bi jeex na toujours ngay génne di dépassé mhm. ku ne ku ko xalaat war ngaa dem yëngutu yëngutu man yëngutu man man façon liggéey bu nekk def naa ko port bii liggéey naa fa ba tàyyi mhm. nekk euh, Sonacos liggéey naa fa ci entrepôt yi wax mhm. ne yu saako def lu ne barke alxuraan su ma ñëwee sangu ba set dem ko la baan wuti fa sama yu rafet toog jàpp ku ma jógee mu ma ah man fi état laa ko jënd <laughs> macha allah Yaxa Dia. Hmm. Euh, mi ngi noonu. waaw nga am ci euh, loo ci war a sànni bu baax te nga xam émission bii di. Hmm. nemmeeku jàmbaar. ñu war a dem fekk kilifa. Hmm. moo xam DG nga. moo xam ki nga xam ne mi ngi lal taabam ci mbedd mi ñu laaj ko. naka la góor góorloo ba taxaw tey ba taxawal entreprise am mhm. ba yeneen i nit di ci jariñu mhm. kon toog tekki am na tukki tekki am na waaw yaxa jaa umu mhm. alaaji bunaama jóob moo alaaji bunaama jóob mi tubaarkàlla gis ngeen bi ñu demee seeti ko tubaarkàllal lañ fa jëlee muy lu am solo doon boo xamante ni dafay won xale yi ne tukki tekki am na waaye toog ci dëkk bi tekki am na waaye tukki yàqu ak yàqule am na dëgg la kon tubaarkàlla macha allah yu mel ni rubrique nemmeeku bi mm-hmm. boo gisee ñu di ko def mm-hmm. bëgg maîtriser xale yi bëgg itam nit ñu xool ci xam ne macha allah. Mm-hmm. fu fu fu fu yàpp nekk rek xaj xam na ko ndax dina ko xenc ba suli ko lu wér la donc mu muy lu am solo loo xamante ni man dama ci gis lu bari gis nga xale yi il faut ñu delloo si seen xel da ngay gis koo xamante ni day tukki dem yaakaar ni am na lépp yaakaar ne bu demee rek day tibb def ci ay poosam ñëw kooka dem fekk fa ay tolof tolof fekk fa ay nattu fekk xaj na ka dem njëkk a dem mhm. sinap yàlla ubbi ko parce wërsëg yemuñu waaw wërsëg nga ngelaw a yem nekk ak wërsëg ak ngelaw ñoo yem kenn mënu leen a téye mhm. ngelaw li lu mu bari bari bari mhm. mën naa fël say sër di naaw fu ne mu jaar fa mais boo ngëbee sa loxo doo jàpp dara kon wërsëg ak ngelaw ñoo yem lu koy gëm xam ne yow kat fu ndox daan taa boo demee fekk fa teb teb te ñii ñëw ci mhm. nañ ma baal ci waxin bi mhm. am na ñu bari ñoo xam dañuy tukki mhm. mais bu ñu ñëwee ba war a ñibbi weccit ba ñu soxla ñu fi toog te demuñu fenn ñoo leen di koy jox tubaarkàlla te ñoo ñu ngi toog fii am na ñoo xam ne ay entreprise am na ay entrepreneur yu jigéen mhm. tubaarkàlla macha allah am yu góor la xale yi ne fi am jom am fu la salon de coiffure yaa ngi fi di dox waaye président na ma woo dama bëgg a taxawal entreprise fii ci nga ni ma lan kon jëlaale ma ah. da nga may jël yëpp di ci liggéey waaw jeex na kon yow toog tekki toog tekki ngay def waaw di leen ñaanal na xale yi nga xam ne ñoo dem ci gaal gi Adja Oumy yàlla na leen yàlla xare aj wallaay ma yeggali foofu nga gis koo xamante ni macha allah day nekk fii tey am lu bari ki mën a génne ci gaal yi fay 4 millions mais 4 millions départ la te yow yaa ngi dem xamagoo gaal gi 350 la 4 millions 350 la kii. waaw déedéet am nag micro 4 million non boobu moo gën a sedd boobu ay avion la ba yegg. waa xaaral mais am na ci ñoo xam ne ci diggante bi. umu gaal gi gis naa ci ñoo xam ne ah, ah, umu. man seetaan naa ci benn vidéo boo xam ne fan yee passé mm-hmm. dañoo wàcc ci diggante bi dajeeg ñi nangu xaalis bi. Mm-hmm. ñu bëgg a dox dugg ci àll bi mais dañoo dee. ndeysaan. kon am mm-hmm. na ay risque gaal gi moom waxuma ko moom gaal gi moom dama koo jël teg ko ne amul bànqaas xam nga soo demaa moom faal mu neex mi dafa mës a dem gaar ba seetaan gis ñoo xamante ne mooy ñiy toog ci kaw eh, raay bi. Mhm. teg fa seenum njaay di jaay. am ko ko ci posé question ni ko mère Soda Mama loo mhm. xam ci ñiy toog ci raay bi. Mhm. mu ne ko ñi toog ci raay bàyyi leen ak saxaar gi. dëgg la. bu saxaar gi ñëwee nee piip. dinañ jug dinañ jug kon donc ñii dem ci géej gi. waaw ñoom nañ leen bàyyi li ci géej gi parce que xam nañ ko. gis nañ ba tàyyi ay nit gis nga umu. amatul raay raayal xale yi il faut ñu wax ak ñoom ñu bàyyi. des na tuuti mag ñi. seen yaay yi ak seen papa yi. du ñu amati ku leen tenir wala ku leen téye te li ma lay wax bala ngaa xam ne danger na mhm. jot umu mhm. fu kër goo daan dugg di fa am fukki nit doo fa am ñaari nit parce que ñëpp dem nañ bu yàggee dëkk bi lan lay doon citoyen yi war a toog dëj ay ndiicum réew mhm. teg tabb ay ndiicum réew ñu toog liggéey ci dëkk bi bu ñëpp demee ñëw di investir waa lii maa jàmm la moo ma jaaxal ah kon nag yàlla na leen yàlla soppi seeni xalaat kon nag Khady da nga ne tey da nga def spécial euh, ab sa giro ëmadi ñu dem ci sa giro giro ëmadi borom Washington DC. waaw góoru Maratal. góoru macha allah ah borom Italie nindi kooku mooy euh, góoru euh, ki nga xam ne yaayam mooy Adja faatu Adja Fatou Seck yaayu Alaaji Papa Diop moom it dafay seetaan émission bi di sa soppe loolu euh, Papa Diop nag nee na nga may ci yaayam dédicace Ajaratu Fatou Seck. yaayu Papa Diop borom ñi ni vision fële ca Italie. kon Papa Diop ñi ngi lay ziar ajaratu Xadi Seck mu baax mi. Moussa Giroy Baaya. ndeysaan. yaay yaay papa. Mhm. yaay mama mama Ndiaye. ndaxte nag. Mhm. Ah, li nga li nga li nga jàpp rek. Mhm. macha allah. ndeysaan yàllaa ko booleeg man. dëgg la muy nit ku baax nag. nitu kese la. giroo am madi ab la. nee naa ab sa rek ab sa nitu hmm. kese la. nitu kese la. macha allah yal na yàlla dolli jàmm. fondation bi jëm ca kanam. fondation bi di waajal nag dem États-Unis def foire bu mag waaw foire bu mag. foire bu mag ci nga di ko sargal tey nag ci umu bi macha allah. salmini ma kon ab sa giroo amadi spécial umu sargal ab sa yaay tiraanga du ñu defal du ñu ko fàtte waaw waaw loolu dëgg ngi dem ba États-Unis seeti ab sa giro sëriñ maam baax mi waaw waaw loolu dëgg sekk mooy sa yaa sekk dalay bañ looy waaw waaw xadi sekk mooy sa yaay arsa jiruuj borom fondation bi ñëw na waaw waaw arsa jiruuj yaay baba njaay sekk kulóor bi waawi korom waaw waaw loolo dagan papa Joob góoru arsa giro papa Joob salminima nde sekka mooy sa yaay waaw waaw loolo dagan papa Joob ay borom Itali Joob sa yaay maratal ab sa way wi doo ci ñaaw na na ab sa nga dem yoo jiro amadi la ah, salminima o me sama pël bi ngaren koote tella umu sawo yaay ma abeya manno laysa nolo umu sawo salminima saw sabor mooy sa baay waaw waaw loolo dagal dagal bagal ka fetella añu ko ba njaay sa yaay la yow ngoy gaañu seeti umu sawo Njaay Mbay ja mooy sa yaay waaw waaw loolu dëgg Ngoy Mbay am nga fulla to baab Iman Mbay Xadi Mbay sa yaay yow Omar Mbay sa baay Baay Suley cooli cooli yow la bilay Baay lay way Baay Sodu Baay Sëriñ Babacar Si aa ah, Iman Mbay Séeri Aysatu lay way moon naa la commerçant bu mag bi lay woy commerçant bu mag bi ci Koungheul ñëw na commerçant bu mag bi bi ci Koungheul lay woy kookoy góoru Fadda Sall kookoy góoru Bombe Sall Eliman Mbay ana Pam Mbay ana Pam Mbay Pam Mbay yooyu woy wi doo ci ñaaw Pam Mbay ak soo li coow yow la Pamba maa lay laaj Pamba yoo sa yaay a liggéey loolu élément bay coow li coow li ay sa toog séeri woy élément bay loo bëgg ci bitik wala kenn tabax sa kër c'est un commerçant bu mag Fanta Sall honorable bi lay laal Fanta Sall yi doomi Koungheul jaage Fanta Sall soxna Seck yaaya Fanta Sall soxna Seck yaaya Fanta Sall soxna Seck baage Fanta Sall danga defar Koungheul Fanta Sall ana Awa fakasalla ana Awa Siise waayu bombeeg waayu faseek waa Saalum jóg leen jaayo Ablaay Seydi Saw pël mi waawi koro ay wata bombay biram pil ngare yooy Ablaay Seydi Saw kookoy baayi Alin Saw baayi baabooy wallaay yaa ngi liggéey saak wallaay yaa ngi liggéey saak ndey awa seede mama wo yoo Ablaay Ablaay mu ngi liggéey saak wallaay yaa ngi liggéey saak waaye Ablaay wilaal laay way Ablaay wilaal seedu maram demba Ablaay wilaal góoru gay moo di Ablaay wilaal seedu ali laay way Ablaay wilaal seedu maram demba Ablaay wilaal seedu faat faal laay Ablaye Wilane Baye Fall Dabo Ablaye Wilane Baye Ali Dabo Ablaye Wilane Bour Fatou lay woy Ablaye Wilane mu Serigne Bamba lay woy Ablaye góoru ndey Dabo lay woy Ablaye góoru ndey Dabo lay woy Umu danga ba ring xam na danga ba jeeg bi ci kaw de ñëw na uma soo tontul nga sa yaay uma soo tontul nga sa yaay ma abilay we uma soo soo jógal jaay yaay duudu yaay duudu ngoy mbay jóg leen jaay uma soo tey daal sama groupe bi lay wey waali seeri njeñ la way tagal waali buri farma taala fayooy sama doom di lay way ko sufi yaay day wi yaa ko moom baayu kuro fay baayu jaara lay way mu ame seeni faatu ñëw na yoo baayu de njaay ñëw na ndey awa ñaay sama rakk jaangi noonu yoo koy sa yaay koodu fay mooy sa yaay awa li ngay neex na yaaya abdu yaayi mama ñëw na jëli mbay tey nga xalamal ma bi mu seex na faal ñëw mu seex na faal ñëw sama doom ji dang may rëkkal baan bi sama doom ji dang may rëkkal baan buuba tama mu sëriñ Babacar Si ana duudu fay duudu fay papa ma ana Doudou ana Doudou ana Abdou Sarr Sëriñ ana Idi ana papa Amar ana papa Amar ana papa Amar sama doom ji ana Doudou góoru joojo góoru awa góoru baata góoru Sali Njaay sama doom Doudou kuy jaamu ndey awa fay rakki ba du fay dañoo laay leela laay magu ba du fay yaay duudu wëyu ma sama doom ji nga xam ne dama ko gërëm nag dafa baax lool ah, bëgg yaayam ma sama tànk di sama loxo di sama ndey ndeysaan góoru mbaac spécial umu bàyyi aji mbub ba mu yàgg sa nii <laughs> waa macha allah chéri jali xanaa da ngay dafa am paan bi maa ngi koy gërëm mhm. dafa voyage dem maabo mhm. moo tax sama yaay jooj gànn mi ci parti Seydou Ndiagane yàlla na la jàmm te amiin yaa rabbi sama yaay bopp amiin amiin amiin yaa ko may sañca bu njëkk mu ka noom mook mook nday awa Ndiaye <laughs> ah, nijaayam nekk ci groupe bi njarka mi ci ñaani sëñ Sam maam ko jëkkër ji nga xam ne mooma dooleel alaaji Ibu Samb Seydou Xadim boog mbaaco mbay waaye awa mbuub yàlla na la yàlla defal jàmm jërëjëf mbuub ndeysaan awa mbuub dafa baax macha allah xanaa rek mbokk yeeg xarit yi xol yee ngi féex mbokku téléspectateurs yi ma safoo di leen jox euh, émission bi nga xam ne ne maa ngoy caali mooy dugg ci seen xoli di ko toqal neex neex xadi mbuub nag tey nag macha allah jéeg jaa ngi seen saal di la seetaan. waaw waaw ab sa giroo ëmmadi ab sa giroo ëmmadi madame Mbacke macha allah moom la ñuy sargal ci umu show bi sama waa ji ñu ngi koy ñaanal jàmm di ñaanal fondation bi jëm ca kanam doomu yaay macha allah maarataal waaye borom nindi papa Diop ah wax dëgg yàlla kontaan nañ umu rasul bàyyiñ kenn ajaratu faama fay ku da ngay juum ca fondation ba aja macha allah ab sa giro wax dëgg yàlla kontaan nañu ci yow gis nañu ni nga ñu taxawoo xadi mbuub kontaan na gis nañ keroog ca galaa ba ni nga ko taxawoo xadi mbuub sa galaa bi foog ma dugal ci rubrique bi tuuti xam naa ne ci biir émission bi ndax la nga tëgg ci galaa bi keroog Khady Mboup euh, parce que nit ñi dañ lay gis ci xew yi tout le temps euh, nit ñi defe ne Khady Mboup du tëgg galaa keroog nga tëgg galaa bu euh, fondation Afrique Vision bi affaire bi jaaxal nit ñi Khady Mboup sa secret lan la. la ah, xam nga loo gisa don lay doon. Mhm. man sama yaay artiste la Seynabou Mboup gànn mi ci parti Seydou Diengane. Mhm. nga tax rajo Kodog Diengane ki ci moom. ndax sama sama yaay dama ko bëgg ba su ma ko waxee sax damay jooy la mu nga kàccoot di ma seetaan di nuyu Oustaz Diané yal na ko yàlla defal jàmm amiin yaa rabbi yow Diané jàmm rek lañ lay ñaan amiin bu alaaju Babacar Diané sa baay borom kàccoot ndukkumaan yëpp mhm. nañ la fonk ah, mbir mi don la mhm. ñu ngi may woo ci galaay kii faat ak lépp macha allah mhm. xadim bu foo ko woo rek waaw kenn sa ma woon damay ñëw def la ma man bégal la. ndeysaan ndaxte nag diw moo ma neex diw laay woo ci sama cérémonie bi mm-hmm. aji ngoy dafa yomb. Mm-hmm. te Xadi Mbub man damay sant borom bi. Mm-hmm. subhaana wa taala dama koy sant. ndax Xadi Mbub Xadi Mbub ma àdduna yëpp la ñëpp a ko bëgg. dëgg la man ñëpp ma bëgg te ñëpp laa bëgg. te Xadi Mbub toogul benn yoon. macha allah ñu ngi tëgg ci bois di. waaw ñu ngi tëgg Soromani di tëgg ay King Fat. waaw ñi ngi woo ba Gambie di ñu woo ba Mali ñi ngi war a dem ba mhm. États-Unis mhm. ñi ngi war a dem ba Angleterre Moustapha Mbaye sama doom jooju kon Fatou. mais soirée bu nekk ak la nga cay tëgg. soirée bu nekk soirée bu nekk na dinaa la indil. parce dafa am xew ngénte am jàkkaarloo. galaa bu nekk ak euh, naka nga koy tëggee tey. jàkkarloo bu amee da ngay woy woyu mbëggeel mu gën a nobanteeg ak séerim. Mhm. buy ngénte da ngay woyal yaay ji woyal papa moo gën a bëggee doom xale bi ñuy ngénte. buy cérémonie nag. nit ñi sol seen costume ma dóor sama robb waaw umu bul fekkee ma dóor sama robb déedéet dóor sama robb dóor samay dàll xadi boo waa yaaxa jaa bu bu dóoree robb dëkk bi yëngu de bu ma dóoree robb jëli topp ah. dootu xam lu muy xalam moo ma jaaxal réew mi ko bëgg xadi mbub tey jii yow boo doon laaj xadi mbub tey loo koy laaj sër ñëppay bëgg ndeysaan loolu yàllaa ko def mm. bu ma ñëwee nag yow yi dama lay defal way yoo xam ne waaw nit ñi di reer ñi acapella mm-hmm. waaw ñi riir a xalam gi bu naa mbaas maa ngi koy nuyu waaw booba tama sama mu sëñ Babacar Si ndeysaan dañuy def yu neex daal waaw macha allah sama rakk ji këram bi moo dàq si samay way sa rakk ji dafa baax xol lay kër yi nit ku baax la ak baax te waali ko mba fandiay li mu ci gara yàlla nañ la langal fii amiin yaara bi waaye sama rakk ji waali fay ndeysaan yëpp moo ko benn yoon dëgg la waali buri fan ma farami ci kawul ndeysaan a fay di sama naa la man sama njaboot laa boole tey sama alaaji bi dem na ba Saalum seeti seet ba waaye jëli mbay seetaan na moom ma weet jalee nga Saalum di ñu seetaan waaye jëli mbay ngi nii koy ziar bu baax joomi mu amet kenn di sama doom tey jabaram laa yor muy sama goro ndeysaan mu amet nii wallaay yaay bàyyi ndey njaay kon àddina nii la mhm. nañuy deflante lu baax taala mhm. fay sama doom la kon Sofia nanaa la yekk gor bu moo ko njëkkee xam ci jabaram laa ko xam dëgg la yàlla na yàlla jàmmal ñoom Aïda Mbuub ñu ngi may seetaan sama rakk ji amee Mbuub waaw ak sama mélangère yi ñoom Ibu Jaxate Ousmane Ndiaye <laughs> ñoom Ousmane ñaa kulim juum dëgg la Ndey Ndiaye mi teel a nee naa la yow doo jooy yaay korwaali fay wallaay maay sa yaay maay sa lépp yàlla <laughs> yàlla dolli jàmm te ñi fi desagum yàlla na leen fi yàlla bàyyi amin yaa rabbi umu réew mi yàlla na sedd amin amin umu réew mi yàlla na sedd ñi ngi jëm ci élection yàlla nañu yàlla may jàmm xadi ñi ngi ñi ngi jëm si élection tey ban appel en tant que porteuse de voix ngay grande dame nit ñi di la déglu say soppeek say fans nekk Italie partout dans le monde ñu ci ciy nuyuwaale Astou Mbaye chéri Mahmoud di sa soppe ma nga foofu ci Italie di la seetaan macha allah di si nuyu nag euh, Makutu Conte sama boos bu baax boobu nga xam ne ne euh, waa Conte Brady Hair si si kii fële ca Atlanta jooja ñoom it ñu lay bëggee bu baax a baax Conte Brady Hair tey ji euh, bu fekkee yaa ngi lancé message pour élection yi naka ngay wax. message ban ngay la ñu xam ne ñoo Sénégal rek uh-huh. ñoo bokk ndey ñoo bokk uh-huh. na ñëpp ànd ak dal uh-huh. jox ko ki ñu wóolu ànd ak dal ne rek ku gañe rek Sénégal doomu doomu Sénégal la dëgg la yàlla yàlla defal jàmm nag ci élection yi bañ dugg ci jàmm amiin dugg ci ci bisum laay génn ci alhamdulilahi rabbil yàlla nañu defal ndam amiin yaa ci ci yi amiin yaa may ñëpp jàmm amiin yaa rabbi bu ñu paree bu ñu élection ci ëllëg sa ku nekk xëy dem ñi liggéey waaw bu ñu élection ba ci suba xëy liggéey amin yàlla na ko yàlla mottali maa ngi ki nuy Korbili mhm. Ba Amadou Amadou Ba mu baax mi jëri kolli yàlla na ko yàlla jàppale di ko siyaare yaa Hadja tey jii di nuyu nag appel ngay lancé papa Mamadou Thior ci élection yi di ñëw ngeen di ay porteur de voix ngeen di wax ñu leen di déglu yaa Hadja Ngoy Thiali mu Adja Ndeye mbay mu baax mi ñu koy nuyu de passage suñu yaay Ndeye mbay ñu moytu ko rek wallaay xam nga tey sénégalais bi nga xamante ni. Mhm. parce que umu leader tey leader nga. ndeysaan. li nga daj ba def sa bopp leader toog fii. yaay leader bu mag bi la ko bëgg a yàqal. yaay sama mag xool wala xamul yow li nga. daj ba baax laay yombul yombul. sama mag ju baax ji mu senatu jaxate. ndeysaan. moom laa jàkkaarloo mu ne ma ngooy mbay ma. Mhm. ma nekk leader yombul. yombul. doomu aadama li mu daj ba nekk leader. Mhm. soo ko xamee ba mu toog femme leadership yow rek femme leadership nga yaa ngi góorgóorlu macha allah doo ko doo ko yàqal li mu doon allah da ngay gis koo xamante ni tey mhm. li mu yor maki moomu ko keneen ak keneen moomu ko déedéet soo ko fekkee mu toog nga yàqal ko ko ci sabotage rey nga ko dëgg la ba su ko defee bii yoon bu ñu ko def nit yor otom bu baax waaw góorgóorlu ba am ko nga lakk nga dem toj toj ko te gouvernement moomu ko te boo xoolee ñi ci faay yàquli ci ñëpp mm. bokkuñu ci ñi nga xamante ni. Mhm. jege nañ gouvernement wala. am nañ ci. ma ci euh, sant bu baax de passage. Mhm. du publicité. Mhm. suñu suppikoo ba nga xam ne moo nekkoon Nations Unies. ndeysaan dañu yàqoon ko ñëpp fa lañu doon duggee. ndeysaan barkaala barki démb la ubbi. ndeysaan ñu sant yàlla di masawu borom. Mhm. di ko wax ne ñu ngi koy sant. ci li baalal xale yi. am ci ñu bari ñoo xam ne mënoon na topp ak ñoom ci yoon. waaw mais daf leen a baalal jéggal leen. ndeysaan parce ku dul jéggale doo jëlee leen. mais leen di jàmm Sénégal doo doo kii. doo jullit pire su ko defee umu. waay ñu fexe def ko ci jàmm kenn ku ne am nga koo bëgg dëgg la kenn ku ci ne am na ku nekk sa xol. wallaay mais nañu nañu nañu nekk. ay sportif def ko ci fair play daal. waaw kenn ku nekk nga bëgg ñu bàyyi la nga ànd ak moom ngeen dem parce que jongante du fi jugee. déedéet. jongante du fi jug. Mhm. politique du fi jug nekk président éternel amul. Mhm. da ngay ñëw mos rek bàyyi sa morom mu dem. Mhm. su ko defee nag boo yàqalee ki fi nekk kay ñëw day gën a sonn rek. liggéeyam gën a mitti su ko defee xale yi nañu bàyyi ci loolu xel. bu baax te xam ne yëf yi moom. yëfi Sénégal la ki ko yàqit Sénégal nga yàqal. Mhm. te it ñun miskin yi ñun ñi nga xam ne amuñu rek ñoo koy fayaat ci ay impôt mu génnaat ci ñun kon ñu bàyyi ci xel umu. waaw ma am question bu ma bëgg laaj Khady Mboup. Mhm. mu muy lu am solo. Mhm. sànq dafa wax ci anti ami. ami ñang lu am solo. muy muy kóllëre seen diggante. Khady ma gis mu am kóllëre trop. te anti ami njëkk mhm. ko ubbil groupe soppay ngoya soppay ngoya xam nga dañ ne jinax bu nee tëll mhm. dañ naan jinax a ngoog waaye mhm. jeneen ju génn dañ naan jeneen a ngoog dëgg la bu génn rek dañ naan jeneen a ngoog lu tax nga am kóllëre xat waaw xam nga sama papa Ndiaga Mbaye mu ne kóllëre ginnaaw lay féete waaye bu kanam bi sa baax na keroog bi ma amee ñang di ubbil groupe man xaw ma sax nu ñu téye whatsapp moo ma ko xamal amee ñang bi ma jàppee ba léegi Maryland ku baax ajara nday saaxo nag moo ma indi Ndakaaru ak sama jëkkër macha allah maati Penda Diop. maati mhm. Bator Ndiaye. Mhm. mu yaay ay sa mi ñu jooy. Mhm. waaye Ami Ñang day nit ku baax ajarat bi daw safa ak marwa. bëgg ma lool bëgg sama groupe bi. leer na ñëpp. bëgg ma lool bëgg sama avancement nag. fu mu xëyee rek. lu avancé loo xadim boobu lay wër moom ajratu amiñang kon yàlla na ko yàlla jàmm amiin yaa rabbi dama ko bëgg ndax li ma fonk nit ku baax nit ku baax moo tax ma posé la ci moom question ndax man mi toog mhm. nday la naa ko sama doom te tubaarkàlla amiñang bàyyiwul kenn mhm. groupe ba ñu nekkoon da daan def chaque mois mu daggal nit salaire chaque mois mu jox nit dara mhm. chaque mois mu defal nit ku am dëj wala nga am naqar wala nga am bànneex anti am yi dana ca def boobu social mais dama gis xadi ngànk rek te bàyyi moo tax may wane ne gis nga artiste war na bàyyi xel ci lii Khady Mboup def. Mhm. man gis naa koo xam ne artiste way na ko mu yëkkati million may ko ko. Mhm. ñu teg ci semaine mu ñëw di nuyu artiste bi xàmmeewu ko. Mhm. moo tax mu posé la question boobu nit ñi nañu bàyyi xel artistes yi. artistes yi dañoo bëri jom. te mm-hmm. tubaarkàlla macha allah bu la artiste wayee xam la di sa nit boo dajewaat ak moom bu la xàmmikuwul rek dafay am nu mu def kon xadim bu bokkul ci artiste yi nga xamante ni ah. dalay da ngay taxataxaw moom tey mm-hmm. mu way la ëllëg nga nga may ko lu sedd sa xol ëllëg nga dajeeg moom di ko nuyu mu bañ laa xàmmee loolu dala ko mbuuba jalit macha allah Makutu Konte Ismaay waaye dañuy def appui basé bu ndaw pour Cheikh Ba Cheikh Tidiane Ba waaw kon baax na incha allah rabbi tey nag euh, mbokk yeeg xarit yi day anniversaire u Cheikh Tidiane Ba mm. euh, góoru li sandooy sama DG sama xarit koo xam ne ne moo ma njëkk a jox biye màkka mm. ne ma siyaareel yonent bi ma jël ko jox ko sama jabaru papa mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam kon nag euh, Cheikh Tidiane Ba mm-hmm. dañ koy souhaiter happy birthday Adja mm-hmm. Ngoy ah Messi euh, di ko ñaanal jàmm Xadim sa ndooy Cheikh Tidiane Ba Cheikh Tidiane Ba moom dañ koy waxal lu baax ndeysaan parce que tubaarkàlla moom it leader la tubaarkàlla te fonk na la am na fu mu la teg. ndeysaan di la bëggee. Corly Sandoo tubaarkàlla dañuy daje nañu fële ca Douta Seck. Douta Seck xadim bu mii la nga toog mu jox nii sa jox la cër. wallaay cëre ma ah, waaw ci plateau bu mag bi di Oum Show ñu ci souhaité joyeux anniversaire suñu leader bu baax boobu. Cheikh Ahmed Tidiane ba góoru ah, li sa ndooy kon nag xadim bu ngoyaan euh, moom day ñëw ci loolu souhaité ko happy birthday to you Euh, góoru Lissa Ndoye ki nga xam ne jàmbaaru Médina la mi ngi fa doon def social yàgg ko def bi mu nekkee élève nekk université yàgg dooleel waa Médina kon kooku yal na ko yàlla suturaal ku feebar mu faj kooku mooy social dëgg dëgg Cheikh Tidiane ba mooy social góoru góoru souhaité happy birthday suñu leader góoru Lissa Ndoye happy birthday to you ñu may ko Cheikh di ko ko waaye saani wese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 Badru Lissa Ndoye Cheikh Ba. waaw macha allah mbokk yeeg xarit yi xanaa bi ñu souhaité Cheikh Ahmed Tidiane ba suñu leader bu baax boobu nga xam ne ne ma nga fële ca Médina di fa bëy waaram di jàppale son excellence président Macky Sall di jàppale Amadou Ba kon nag euh, Cheikh Ahmed Tidiane Ba dañ koy souhaité la totale lu mu dund doyul waaw xol bu rafet la yore macha allah Khady Mboup xam naa émission tire à sa fin émission baa ngi jeex te xam naa gënaluñu Papis Mbaye nag suñu doomu ndey nee na macha allah ñu ñu def benn deux minutes tàggatoo. waaw dañuy def benn deux minutes ñu demee ko ci jigéenu Waly Seck. jigéenu Waly Seck. maa kunta konte waaw waaw is my boss. dem ci sama sama papa tamit Mamadou Thior. wallaay may mën a lu ndaw rek. nday ndeysaan ndax émission télé la. waaw su ma soñoon nag Sénégal àdduna yëpp lay woy. nday saan ndax ñëpp a ma bëgg. wallaay ajatu Marie Mariette Diouf mi nga xam ne. Mhm. maa kunta konte lañ jëm. waaw waaw jigéenu Waly Seck. jël loolu ba tax na macha allah mbokk yeeg xarit yi nag l'émission tire à sa fin da doyaluñu sax nag ndax lu neex lu doy dañ koy dagg ba beneen yoon eh, li ma sañse nag Amazon boutique la macha allah ci cuub bi nga xam ne ne ku bëgg cuub bu jongoma bi eh, na nga dem fële ca Moussa ca marché Zeng Moussa sama mbokk alpulaar la eh, cuub bi moo ma ko jox macha allah waaye Amazon boutique Ousmane Diop borom yëmbal borom route de Boune moom a ko ñawal képp ku ko bëgg rek macha allah nag ma woo ci numéro yooyu. 77 460 85 72 ku bëgg ci tin yi tamit lee de corps yi nga woo ma ci 77 460 85 72 ngeen euh, cuub yi nag dafa xew ci jamono nag kooku di Moussa euh, numéro mi ngi nii euh, ku bëgg ci cuub yu am maanaay am na ñu koy def grand boobu waaye man tey baas nag laa opté numéro Moussa mi ngi nii ngeen jël numéro bi muy 77 177 58 43 77 177 58 43 bazin am na lépp am na macha allah sama mbokk alpulaar boobu kenn du moom ba tax na macha allah Ousmane Diop borom yëmbal euh, ci coupe bi ci Amazon couture nee naa la ñu ngi ci lait de corps yi ñu ngi ci saabu yi waaye ñu ngi ci couture yi képp ku bëgg a beeli jongo ma incha allah rabi na nga ma woo ci numéro yooyu dëgg neexul origine euh, la qualité fait la différence. bu loolu nag passé dañuy ñëwaat rek xadim euh, boobu nga xam ne ne boo ko woowee du la tànqamlu yaa xajaa Euh, ñoo ko terelee lii macha allah ci bis bi macha allah mu def ko grand mbubbam waaw léegi nag suñu suñu sœur moom it incha allah dinañ ñëw ci moom. kon nag xadim bu xanaa tëralati ah. yàgg nga <laughs> Absa Giro borom Washington ñu ngi kontaan ci moom ci sargal bu mag bi ñu ko defaral tey jàmbaaru jigéen di kontaan ci nag euh, Aïta Chéri Iso di kontaan ci ñoom mami ñoo jaar ci maquillage bi bopp bi madoo euh, borom euh, Medina ci customisé kon nag Xadi Mbuub Ngoyaan maa ngi lay ñaanal yal na la yàlla suturaal yal na ñu toog ba duudu mi ak sa beneen doom bu góor bi. papa mi nga xam ne yaa ko tuubal jëlee ko si beneen kii macha allah. diine indi ko eh, tuddee ko Seydina Muhammad kon mbokku téléspectateurs yi seen mbégte rek mooy suñu bànneex kon nag ñu bàyyi xadi mu biré la di gërëm nag eh, ñi nga xam ne équipe bi ñoom la àndal di gërëm Papis mbay di gërëm équipe bi nga xam ne ñooy équipe technique bi yëpp ñi ma jàppale kon nag eh, Makotou Konté is my boss waa Papis mbay kontaan naa ci Papis Mbaye waa bilaay mooy sama xarit ah sa xarit la de mooy sama mélangeur wallaay jeex na jëli ñëwal <laughs> ndeysaan doon na Aysata Daabo ji maa ko ci konte jëri soxna fa joor tàccu leen mu neex ana seex joor xam nga kuy seen baay wéy wi yaa ko moom Mariatu mooy seen yaay Mariatu Juuf kooku mooy seen yaay Maymuna Joor tàccu leen mu neex Maymuna Nduur Maymuna Nduur xanaa di ma woo télé bi yaa ko moom Maymuna Nduur colonel Sidi lay la laay koo koy Papis Mbaye Papis yàlla na ngay maam Papis yaay PDC PDC Papis sa TV ko moom 7TV yaa ko moom Papis Mbaye Papis Mbaye Papis Mbaye Papis Mbaye Papis Mbaye Papis Mbaye Papis Mbaye xuloo ba ca dee ba ay goña amoon baag la Modou Diouf fooy Diouf a ñoxo baay ana yàdde borom gaani Modou Diouf ko nomb nango séeréel bi séeréel bi Modou Diouf séeréel bi Modou Diouf séeréel